ci jigéen ñi dañuy faral di am jëkkër seen jëkkër nag yàlla dafay def seen loxo demeewul noonu ñu ñàkk ñu jóga ko daanu ñu dem ba ca biir nga gis ndaw si changé jikko di dem di ut ñu muy àndal ñu am alal jëkkër ji nag da ciy teg bëtam bii xam ne jabaram a ngi koy mooy mu ne pat toog jàpp njàmburam ba yàlla li muy def yàlla jëkkër jooju mu fexe ba mu am liggéey bu baax mu commencé nekk jëkkër ji dem jël xale takk xale bu baax teg ci wetam ate jabar jooju nga xam ne da ko doon trompé daal di ñëw di kaas ay droit am waaw waaw ba démb dul démb maa ak la woon maa fi nekkoon di muñ jëkkër ji ngor ak doomi ñoo toxoon génnewu ko kër gi mu bàyyi ko mu toog ba tey mi ngi toog waaye gis nga ndaw soosu noonu taqal nañ ko de waaye jaratul dara ndax amatul benn sens